jàkkaarloowaat ak yéen saa su ne ngeen di tey journée bi daanaka bi ñu xëyee ba léegi ñu ngi topp li nga xam ne moom mooy Pape Alioune Ndiaye ci initiative bu rafet bi nga xam ne def na ko képp kuy sénégalais war cee jàng rawatina kuy doomu daara li mu koy ci félicité mooy reconnaissant bi su ko neexoon tey investissement bi mu bañ ko cee fekk parce que c'est pas force mu def mais ndokk bu amee xalaat bi ba pare ñëw ne damay désertage indi ko daara loolu mooy li ma ci gën a marqué tey ñu war a waxtaan ak moom ci li nga xam ne moom mooy initiative bi nan la dikkee ci moom lu mu yàggoon a rêve la avant muy nekk international ak euh, kañ la gën a ñëw ci bopp ba tax mu def lu toll nii mel nii ci un jeune boo xam tey euh, mën naa ne bi nga jógee yàggul mais yaa ngi xalaat sa ginnaaw ba tax nga investir lii lay fay euh, di la remercier déjà si déplacement bu nga bu nga def yow ak sa sa collègue yi vraiment je pense que tey euh, journée bu journée bu remplie la woon parce que ñi ngi doon xamoon nañ ne xamoon nañ ne mbir mi dina rey mais yaakaaruñu woon ne dina dina dina rëyee nii ba tax na mënuñu def leneen lu dul euh, sant yàlla. commencé nañ ko ci bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabil alamin d'accord rêve bi kañ la commencé woon ñëw ci yow ban âge. alors man xam nga bi may bi may ñaan yàlla nekk professionnel euh, boobu man jàmbaar laa commencé maanaam avant jàmbaar bi ma amee 13 ans laa fa dem avant boobu footballu footballu koñ laa doon def ni ko waaw footballu mbedd ni ko xale yëpp doon defee bi ma demee jàmbaar. ci nag euh, ngay commencer di di rêver mais au fur et à mesure at yi di dem rêve yi danga koy jéem a en objectif commencer naan ah lii nii ma nekk gëm ko war naa ci mën a am dara donc bi may wax bi may ñaan yàlla doon suba euh, kenn ci football bi dafa am lu ma façon yéene su ma xol donc tey yàlla su la dénkee dara mu tuuti mu bëri da fexe jëf jëf boo xam ne Euh, du waroo ak li nga li nga waxante woon ak sa borom ba tax na ci loolu rek la ñu la ñu nekk euh, jolof suñ ko fi defee war na parce que ay jolof-jolof lañ su ma papa mi ngi dëkk fii Daara sama yaay dëkk li Linguère euh, ma amoon yéene après coupe du monde 2018 parce que dañ ma defaloon fii ay wàcce kaamil di ma ñaanal mu touché ma trop donc ci laa contacté woon sama sama sama sama entourage ma ne leen incha allah su coupe du monde bi jeexee damay ñëw jolof pour euh, euh, euh, fas kóllëre bi gën a gën a nemmeeku ak sumay mbokk ak samay am di jàmm bi ma fi ñëwee ci laa leen promettroon que dina am lu ma fi def naam waxuma leen woon waxuma leen woon lii wala lii lay nekk mais promettroon naa leen que dina am lu ma fi taxawal bi ma delluwee ay mois après may xalaat ay années ci laa xam ne nag mënuma tey dugg kër ku ne ku nekk ma fajal la sa soxla waaye def tey ci loo xam ne ñëpp boole nañ ko bëgg muy football parce que jolof-jolof yi dañu bëgg football loolu daal moo wundu li tax ñu ñëw taxawal fii euh, projet bi. mais est-ce que yomb na euh, investissement bu toll nii ci euh, ci ci yow est-ce que na au début. waaw xam nga mënul mënul mënul yomb ndax fële quand xaw na xaw na rëy wante. ñi ngi jéem daal ñi ngi jéem li ci des moom yàlla mooy kàttanal yàlla moo lay moo lay moo lay dooleel sa yéene rek nga am football suñu suñu euh, passion la euh, ñu dem ba ci biir mu nekk suñu métier je pense que tey sant yàlla rek nga mën def parce que néew na tey ci àdduna ñi nga xam ne xëy na tey docteur bi bëggul woon nekk docteur Euh, mason bi ñaanoon na yàlla lekk leneen mais yow tey nga bëgg dara ba pare yàlla suturaal la ngay gagné sa vie ci loolu je pense que loolu chance bu extraordinaire la donc euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi jéem daal ñu ngi jéem. mais bokk na ci ay Pape Alioune jaay yu bëri soqeekuwaat fii loolu day nekk si fierté aussi. waaw loolu loolu loolu fierté lay nekk donc euh, tey lii giving back project la mooy tey li ñu football jox moom lañ ñëw bëgg a delloo suñu suñu suñu communauté. Euh, joxaat ko joxaat chance bi suñu ay rak xëy na ñoom ñu am carrière boo xam ne ñun sax amuñu ko donte tey ñu ngi football ba tey mais dañu commencé di di di di xalaat ci lu ci lu mel noonu waaye du footballeur kese man suba sama fierté lay nekk suñ ne ministre bi Jolof Olympique Club la la génnee kii avocat la Jolof Olympique Club la génnee pourquoi pas le futur président de la République ñu ne ci Jolof Olympique Club la génnee. en tout cas daal li ëpp solo mooy xale yi ñu mën a gagné seen vie suba euh, dignement ñu mën a nekk des hommes des hommes de demain euh, mën a gere seen bopp gérer seen famille ak seen i ñoñ. d' accord actuel ñu wax ci actualité dëkk bi jaxasoo na sénégalais ga nga gis sunu mbokk sénégalais yi. ndax Euh, li ma li ma kees Lamine dugale xam nga Lamine jindi la dafa doy waar mooy ta mooy taxawal lii est-ce yomboon na ndax dama am partenaire yoo ci àndal wala say propre moyen aussi. non waaw xam nga xam nga tey euh, bu ñuy wax moyen du du du du du koom-koom kese. parce que tey nit mën nañ mën na la ñëw dooleel ci xel mën na la dooleel ci matériel lu ci ëpp ñoo koy def mais ku ñeme dañ laa déy am na tey ñu ñuy waxal ñoo xam ne. soo ñemee c'est parce que ñoom ñoo nekk sa ginnaaw am nañu am nañu ay partenaires tëjuñu benn bunt ubbil nañ suñu euh, ubbil nañ suñu ay bunt ñëpp au Sénégal comme à l'étranger pour l'instant nag lu ci ëpp ñu nekk à à l'étranger la ñuy liggéeyal voilà mais xam nga Sénégal neexul wax maa ngi koy wax démb benn émission euh, buñ ma buñ ma invité woon mais xam nga Lamine lan mooy problème mu Sénégal sooy xaar doo mës a commencer et man dama amoon objectif suba même bu entreprise sénégalaise wala en particulier ku mu mënti doon kuy ñëw pour ñu liggéey daf ñuy fekk ci yoon bi mais soo toogee rek di xaar kenn du ñëw donc tey ku fi mënti ñëw di nga fi fekk ay actifs parce que am nañ ay installation yu mën a wax yu mën a tax ñu ne ñun club lañ on a bus bu ñu per qui nous permet ñu assurer suñu logistique tey fu ñu bëgg a dem ci Sénégal dañ fay dem sans sans sans difficulté am nañ tey salle de musculation de dernière génération boo xam ne day yombal suñu liggéey ci entraînement yi am nañ un terrain synthétique pour l'instant ñi ngi nekk di liggéey yeneen yi prévoir nañ aussi terrain gazon bëgg nañ fi def piscine bëgg nañ fi def otel dañu bëgg daal booster la zone naam nag ci football la ñu bëgg jaar mais daal bëgg nañ Daara Jolof nooy bu baax. mesure d'accompagnement parce que tam mais bisimilah. dafa laaj tam du ne jaar Daara Jolof sax site bi Daara Jolof la nekk mais Jolof bi yëpp. d'accord mais mesure d'accompagnement parce que gis nañ bi barina na mais dafa laaj tam accompagnement bu sérieux boo xam ne dafa am continu. waaw fii moom lu amul lu amul mesure d'accompagnement du du du du dem du dem et loolu yëpp ñu ngi ci ñu ngi ciy liggéey xam nga bu weesoo loolu sax euh, xale yi waruñu leen di préparer rek pour ñu nekk euh, ay footballeur professionnel suba parce que taux de réussite ci football dafa ñëpp xam nañ ne dafa ndaw il y a beaucoup de candidats mais il y a peu ñu tuuti ñooy am chance jàll donc ñun fii même ku mosul jàng mesure d'accompagnement weesuwul tey ñu ne la da xool li nga bëgg même soo musul jàng que sa soit bu la neexee euh, nga def froid bu la neexee nga def mécanique bu la neexee nga def menuiserie boo bëggee euh, liggéey ci boulangerie yi yaa xam loo bëgg ñun ñu accompagner accompagner la si mais football kese encore une fois mooy profiter ci occasion bi pour wax ko xale yi football kese wóorul football kese wóorul ndaxte comme ni ma ko waxee sànq taux de réussite bi dafa ndaw mais suba sax euh, au delà de euh, taux de réussite bi yàlla mën na la nattoo gaañu gaañu donc soo gaañoo sa carrière yam fi te amoo ci leneen loo jàpp yaakaar naa ne da ngay mujjee di wër ci këru nit yi di ñaan loo dundee te loolu asgor asgor su nekk buggalu ko boppam. waaw au retour euh, ce sentiment de de satisfaction pas tey. lan la sama réew je pense que pour ñun ñëpp tey ce pays en a assez fait ñun ñun ce tey benn benn set dose de notoriété set cote de popularité suñ ko amee sénégalais yi ñoo tax yàlla moo ñu nattu bu ñu génnee fii dañuy joxoñ naan mu ngi ne sénégalais yi ñoo ñu def loolu donc en retour tam dañ leen war a bàyyi xel loolu kese la maa ngi koy wax mënoo jël noir nga peinturaat ci noir couleur du génn on peut pas pendre du blanc sur du blanc il faut peindre noir voilà après nga andi blanc pour que nga mën a am symbiose bu nice donc pour wane ne rek ñun ñëpp dañu soxlante. d'accord on nitu defi nga tey keroog bi nga demee ba réaliser lu toll nii tëdd muy guddi gu njëkk nga jàpp li ma doon rêvé tey réussir naa ko macha allah loo yëg parce que nitu defi bu réussir am na lu muy yëg satisfaction boo xam ne moom rek moo koy yëg wax dëgg yàlla lii début la rek xam nga. tey suñu suñu terrain synthétique lañ doon inauguré c'est vraiment symbolique commencé ñu sax bay pare ah, ah mais oui un site de 17 hectares nga teg benn terrain synthétique am nga ay locaux am nga ay vestiaires am nga une salle de musculation mais amul amagul leneen donc li des moo moo moo ëpp fop d'accord euh, mais c'est encourageant gis euh, nga nga sa papa sa papa nga tuddee ko ko tey relation boobu see diggante ak sa papa tey ba tax bi ngay wax sax eggale woo ko da nga mujj dagg parce que émotion sa diggante ak sa papa aussi. waaw man sama papa sama xarit la. sànq rek moom am na kenn ku ma wax ne daf ko wax lu ko manqué dane ko man ak moom relation xarit la du relation bon du ma ne du relation papa doom mais ëpp na relation papa doom te du man kese maanaam doomam yëpp noonu la noonu la mel ak moom macha allah mais comme man maay caat. Ah man ak moom ko paa bi far na waaw man ak moom dañoo am benn benn complicité bu spécial sama mag yi sax bi ñu gën a nekk xale bu ñu daan bëgg dara ci moom man la ñuy man man maay nekk mandateer bi man la ñuy yónni man maay dem wax ma màggee noonu ma nekk xaritam moom tam mu nekk suma suma suma waay dëgg. raison yu bëri dafa war a mën a tax ma tuddee ko ko parce que sam pap il a beaucoup pour le sport pour le football en particulier addunaam yëpp football la macha allah loolu benn raison la beneen raison dafa am benn benn benn aspect pédagogique bu ci nekk mooy que il faut xale yi ñu xam di teral seen ay waajur aussi parce que ah sànq de am na benn waaju baax bu ma dajeel mu ne ma lii de moo dàq tuddee doom ma ne ko ah man de du ma wax loolu waaye doy na waar donc waajur yi dañu sonn ci ñun il faut ñun tam en retour ñu ñu ñu leen di def plaisir loolu beneen raison la beneen raison bi dina dina egg mais gis nga nit yi il faut ñu leen di rendre hommage de leur vivant tous ces braves gens qui se sont battus pour le pays qui se sont battus pour le sport pour le football pas rek dans le domaine sportif mais nit yu nga xam ne tey man sama pap mooy sama champion. oui waaw mooy man sama pap. mooy non mooy sama champion. mais ñaar ko dàqoon laaj naa ko mu ne ma noo wax dëgg yàlla yaa ma dàqoon football. Oh, kon fair play waaw moom fair play na mu bañoon na avant nag bañ na ko lu yàgg. mais waaw waaw léegi nangu na léegi léegi nangu na. d'accord tolluwaay dëkk bi un sénégalais nga tey boo déggee li xew ci réew mi muy parti pouvoir opposition ay sénégalais di ci génn àdduna te souhaité wuñ ko benn message ngay wax ci ñaari cas ñu xam ne réew mi jàmm la soxla ak stabilité. waaw réew mi jàmm la soxla xam nga honnêtement Sénégal wax fi dafa xaw a métti waaw dafa xaw a métti mais ku dee ak sa bàmmeel te man moom lu ma gëm ak lu ma xalaat rek lay wax mooy que gis nga euh, euh, ñun bu ñu nekkee à à l'extérieur dafa am leen lu ñuy ndamoo Sénégal maanaam dañuy toog suñu copain tubaab bi suñu équipe yi ñi nga xam ne sax xamuñu trop Sénégal mais stabilité réew mi la ñuy njëkk a ndamoo wax ne réew mi réewu jàmm la euh, réewu cohésion la voilà réewu teranga ñun ci ci aspect yooyu lañ daan lañ daan développé voilà fa lañ fa lañ daan développé donc suñu gisee yenn image yi daf ñuy métti bon am na ñu si jël position mais mais man li ma xalaat et je mooy que ne ñun yàlla daf ñu daf ñu daf ñu daf ñu daf ñu cëral du ragal ñun fii ragaluñu ragaluñu ragaluñu jël position mais pour man xam nga lan moo responsable mooy woote jàmm sans pour autant nga mën nga far am na waxtaan boo xam ne mais man mii muy yow Lamine muy Fadel ku ne am na foo far mais il faut il faut avoir parfois un discours responsable te discours de responsabilité mooy lan man am na loo xam ne su ma toogee su ma kër ak su ma njaboot ak su may xarit foofu damay am ay waxtaan yu terre à mooy comme waxtaan comme un sénégalais voilà wax lu ma xalaat kii lii kii lii kii la mais tey mënuma génn ci place publique nit yi du ma déglu may prôner vraiment un message de violence wala un message boo xam ne du indi jàmm ci réew mi donc vraiment j'en appelle à la responsabilité de tous nañu waxtaan parce que gis nga tous les problèmes du monde sa se termine autour d'une discussion day yàgg rek mais dañuy waxtaan donc bu ñu xamee ne lii mooy mujj nañ ko nañ ko nañ ko njëkkee pour énormément de raisons pour énormément de raisons le Sénégal a toujours été un pays stable et nañu góorgóorlu ñun ñëpp tous les hommes politiques de tous bords toutes les autorités coutumières nañ ci wax aussi euh, jàmm dellu ci si réew voilà. looy tàggatoo. Ah, waaw waaw waaw waaw waaw parce que tey da ngaa fekk da ngaa fekk mburum làmb nga def ko jour ba pare def ko atanga mais dafa dem ba Modou man dama jàpp ni sax. moom man Modou Lo mi ngi may dafa dem bu mujj gi dama yaakaar Modou Lo sécurité ci biir terrain moom daal day taloo nekk xam nga moo tax football daal loo loo loo loo jàngul doo ko tari Modou Modou ndenge ngem la ak kor ak kor mais mais mais bii une deux tey gars yi war na la li mënoo une sa diggante ak ñooñu. waaw Modou Modou suma xarit la comme Papis ñoom ñaar ñëpp sama sama sama ay xarit lañ Modou dañu dem ba léegi suñu relation dépassé na affaire làmb ay affaire làmb ay joueurs dafay ñëw lekk ci suma kër wala man ma dem lekki këram chaque fois presque su ma ñëwee xanaa ma ñëw ay trois jours ci lañ dul gisee mais à chaque fois su ñëwee eh, dañuy gisante mu nekk nit ku baax suñu relation dépassé na eh, làmb am na lu bëri loo xam ne jarul fësal mais je pense que ne su bàyyee làmb suba man ma bàyyi football on va continuer des amis dañuy continuer wootante su ñu amee ay match guddi dinañ ko footballandoo ensemble dina ñëw sama kër di lekk si dinaa dem këram di di di di lekki je pense que relation boobu lañu am waaw. waaw Modou xëy na xam nga ñaar ñaar ñaari nit bu ñu gisantee benn yoon kaa ñu kaa ñuy nekk amul fenn mais dafa nekk nit koo xam ne rek on adore être ensemble. parce que xëy na dama gis ay jikko. yu ma am moom mu am ko moom tam xëy na noonu la loo loolu la rek papis tam pareil papis su ma ñëwee papis su ma egsee Sénégal sax moom moo may jël si jël si aéroport vraiment mu dem ba euh, euh, lu bëri lié ñu moom aussi mu nekk suma xarit nekk tey mën a sonn ci nit papis moom je pense que Sénégal yëpp loolu lañ koy loolu lañ koy seedeel di ko ñaanal aussi moom jàmm ak soxnaam ak famille famille am yëpp kan moo la wax loolu yow. ah Modou moo wax loolu. ah waaw Modou wax na kay léegi loo bëgg man moo. lan moo lan moo war a def sa xel ba tax tayoo nekkoo entraîneur nekkoo mbëru làmb nekkoo kët si lu tax lan. ah comme wér na daal mi ngi entraîné sant yàlla rek waaw. mais ñu bëri dafa gaañ. dafa gaañ. loolu loolu moom sama baat ci kaw. keneen ku ci wax leneen. ah da ngaa ñemee rek. parce que gars yi moo dafa blessé tawul continuer d'entraînement di entraîner. Modou ma moo Modou yor na ay vidéo yu garaaw ci blessure <laughs> yoo xam ne yoo xam ne non loolu du ma leen ko jaay dinaa leen ko xooy daal après wan leen ko ngeen xool ci téléphone naa leen ko wan nii mais bu jeexee jeex na xoolal Lamine ni mooy xoole <laughs> ah tey mu dëgmal bis tam moom digganteem ak Ama Baldé toujours nit ñi di ko bëgg di ko xaar xam naa ne am ngeen bis bu demee diggante am amagu leen bis bu ni mel nan ngeen waajee bis boobu aussi parce que dafa bokk ci ay réewu Ama jàkkaarloog Modou te kenn ko da xam seen diggante ak Modou. mais Ama tam champion la Modou Modou guerrier la Ama tam guerrier la ñoom ñaar ñëpp ay ay ay ndaanaan lañ xam nga tey dañuy bëree bégal sénégalais yi euh, ñaari grand champion la je pense que combat boobu ñëpp ñëpp ñu ngi koy xaar. Euh, Modou bëgg na bëreeg Ama Ama bëgg na bëreeg moodu yàlla moo def nag combat bi taxawagul on aura on aura un un combat épique incha allah. ñenn ñaan daan Modou ñemewul Ama dafay daw combat bi moo tax muy indi blessure yooyu yëpp détails yi bari ko wax. Ah, waaw xam nga làmb moom su amee ku nekk da ngay da ngay wax rek nu nga gisee mais je pense que ci réewu démocratie la ñu nekk ku ci nekk am nga droit lu nga gis lu nga gis nga wax ko. looy tàggatoo ginnaaw bi la remercier tey ci satisfaction bi nga am woote ñëpp wuy si la aussi. waaw lu may tàggatoo mooy remercier sama famille parce que ñooy suma doole. maa ngi remercier samay xarit samay am di jàmm remercier tous mes collaborateurs remercier mes partenaires euh, remercier les autorités de la ville remercier sama xarit yu ma ñëwal tey parce que Dakar ñu ci bëri lañ jóge am na ñu jóge Saint-Louis mais ñëpp xam nañ ne dëkk bi fu mu toll nii xam na nit yi amuñu jot donc ñu bàyyi seen ay yitte ñëw loolu ay milliards sax mënu ko fay donc ma kontaan ci loolu trop remercier mes grands sœurs macha allah remercier ma femme moo mon épouse jàpp na si affaire yi bu baax remercier mes belles sœurs ñoom aussi ay ay ay ay jàmbaar lañ maa ngi leen di tooñ na te ay bénévole lañ ay bénévole lañ ah maa ngi leen di tooñ naan leen li ngeen ci sonnee nii su ngeen ci su ma leen su su ngeen ma doon fayeeku man dootuma dese dara remercier aussi l'homme de l'ombre mon grand frère Ali li ma koy tudd bëriwul mais guerrier dëgg la moom moo nekk au four et au moulin day daw rek waaw remercier le manager général aussi Pape Sangoulé sama xarit kooku moom sama genn wàll la Mamadou mbay la coordonnateur tout le staff technique euh, tout le staff administratif suñu secretaire général maa ngi remercier ñëpp gars yi fii Isabat un travail extraordinaire xam nga Fadel lii lan moo tax ma bëgg ko préciser parce que dañu passionné. Oui. j'ai j'ai autour de moi des gens passionnés des gens très loyaux pas une loyauté de circonstance mooy ok situation am na bàyyi ma wane ne fii non mais des personnes vraiment loyales pas une loyauté à à géométrie variable mooy tey no no non non c'est pas c'est pas ça maa ngi koy wax démb da nga fay ay nit ñu jëlaat seen xaalis. di ko def ci projet bi mais xam nga ne ñooñu dañu dañu dañu ay nit yu engagé leen et je pense que notre pays a besoin de ça ay jeunes yu si bëri ñoo siy liggéey ay jeunes postes yi ay xale rek ñoo ko yor am nañ trois 4 mag de yu am expérience yu coaché xale yi mais ay xale rek ñooy woyal euh, ñooy wëyal euh, liggéey bi ba tax na maa ngi remercier ñëpp di tàllal suñu loxo waa Jolof di tàllal suñu loxo waa Sénégal pour ñu ñaanal. mais xale yi xaw na ne rek ci match bi. waaw mais noonu la sama gars yi dañ ma mujjee wax ne su may encouragé sama booy sax duma ko tey gars yi na ma yow est-ce que doo jël maillot bu bleu rek nga joué ci sa booy. mais booy booy gañe moom moo ma moo ma gënal. score bi ñaata la. non man après dama. 24 ou 24 2 <laughs> non agul foofu man après dama génn di di wër di nuyoo donc di remercier nit yi tout ça donc concentré tu ma woon trop ci ci match bi voilà. en remercier. Biram Biram Thiam aussi bu Linguère sama sama sama xarit la maa ngi koy nuyu muy muy nit ku baax waa Linguère itam yëpp ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. merci ñu ngi lay. dibitëri Uba pour la première fois dibitëri professionnalisé.